يا أبي الأمم يا أبي الأمم ديكال باي منصور يا أبي الأمم يا أبي الأمم يا أبي الأمم كن ديكال باي منصور يا أبي الأمم أنا صبي يا أبي الأمم jaa abil umam déggal la baay Mansour wax jaa abil umam jaa abil umam waay waay soppir abil umam loxo ca kaw déggal la baay Mansour wax jaa abil umam Maodo nee yaa abil umam yaa abil umam kon de gal la baay Mansoor wa yaa abil umam mana yaa abil umam ayo yo de gal la baay Mansoor wa yaa abil umam yo yo yo yo yo ñu ne Seydal Haaj Malik mu ne qabla nisaa صدقت أولاد وخرجوا من عاص والبدر إبراهيم ذي الوذم ñu ne Seydi El Hadji mu ne ma leeralal la moom Xadija bi ko yonent bi mi ngi toll ci ñeent fukki at ñu ne Maodo bindal mu ne Xadijatun damma bil jazli a idataan ñu ne Seydi El Hadji mu ne ma tegal la ca moom aaw bu baax la moo tax ba ko yonent bi jëlee sey naan moom ba mu génn àdduna musu koo tëkkal wujju ñu ne Maodo bindal mu ne xadijatun damma bil jadri aidatan ayata xayral muxtaaru lam yakumi ñu ne Seydi Laaji moo wax nga ñu xadija moom moom yonent bi nag ñaata at laam mu ne inna sa'i alladi mu war a wax ittafaqa jumhuuru waaye bu ko woyee woy wi day damm mu ne inna saay alladi jumhuuru fi imaar ñu ne Seydi El Hadji Malick mu ne werante wa bari na fa Abdallah yay baayam ak Aminataay yaayam lii rek la nit ñi werantewul waaye lu dul loolu werante nañ ko waaye Seydi El Hadji Malick nee na li ma lay wax takku ko mooy li in kawa fiye min duni ma wadami ñu ne Seydal Aaji Malik mu ne déggoo fa lim dey waaye dama koo kodee ñu ne Maodo kon dekko ko mu ne jëlal ma yëxee yaagu njëkk gi fukk la ak béer gi juróom la jeneen yaa gi fukk la boo ko boolee muy ñaar fukki at ak juróom la yonent ba moo tax gaañe doon bay jag saaw ne ko Maodo loo wax dëgg la dëggal la bàyyi man soor waay waay jaa abil loxo ca dëggal la bàyyi man soor waay jaa aca loxo yi ca kaw abil umar jaa abil umar dëggal ndigal la bàyyi Mansoor waa jaa abil umam jaa abil umam waay waay soppi rasul loxo ca kaw ndigal la bàyyi Mansoor waa jaa abil am qiila aqoo aqila walid waa sakrana min isami ñu ne Seydal Aji Malik ñoom may Xadija mu ne lim nañ ci ñett am amr ibnu asad kooku bàyyi taxu xadija la moo bàyyi xadija ñoo bokk keneen ki amr ibnu xuwaylit la kooku moo xuwaylit moo ba xadija ñoo bokk baay xuwaylit day seen baay ki ci des mooy xuwaylit ci boppam ñetti nit ñi lim nañ leen ñii nee nañ ibnu asad la ñii nee nañ amr ibnu xuwaylit la ñii nee nañ la ñu ne maxdo kon wayal mu ne innal muzawija xaalul xamu qiila aqu aqila waliduha sakraana min isami ñu ne seydal aji malik moo yow loo wax mu ne ñetti ña koo lim baax na على الثلاثة ذاك العقد قد قدروا لذلك الفعل منسوب لكل ñu ne Seydal Aaji Maalik moom Xadija ndax yonent bee ko njëkk jël mu ne déedéet am na ñaari jëkkër ñetteel bi mooy yonent bi ñu ne Maodo wayal mu ne ñett ñaari sëriñu Xadija yi ki ci njëkk mooy Hind ka ca des mooy atiix yonent bi door a ñëw ñu ne Maodo bindal mu ne hindun tazawwajaha من قبله وعتيق قيل بالعكس جل الله ذو الكرم moo tax ñun ñëpp ñoo war ne déggal la baay Mansoor waaw jaa abil umam jaa abil umam waay waay jaa abil umam loxo ca kaw déggal la baay Mansoor waaw jaa aca loxo ya ca kaw jaa abil umam jaa abil umam seetal la baay Mansour wax jaa abil umar jaa abil umar ne ayo yo seetal la baay Mansour wax jaa abil umar ne ima amarat bi raxsi min tarabin famala ayala fi daka min nuzumi ñu ne Seydal Aji Malik waa liñ lay laaj lenn la ndax moom Khadija ba ko yonent bi takkee ndax ceetal ga xumboon na Maodo nee na xumboon na loolu ñu ne ko lu waral loolu mu ne Khadija daawoo ay jaamam yu jigéen naan leen tëgg leen fecc leen tey bésu mbégte la tey bésu feet la ima a amarat bi raxsi min tarabin ñu ne Seydi Alaaji Maalik yeneent bi ngay wax di tudd ay fecc mu ne déedéet dara newu ca fa ma la yàlla fi zaka min nuzumi ñu ne Seydil Aaji Malick mu ne moo tax yonent bi lépp ma barkeel ñu ne Seydil Aaji Malick mu ne xoolal tey moom Khadija mooy jigéen ji njëkk a gëm yonent bi qabla nisaa sadaqat awlaadu woo xarajoo min asiwal badri ibrahima dil wadami ñu ne Seydil Aaji Malick mu ne moo tax gël jazaaw ihsaan ilal ihsaan lu baax lu baax a koy fay xadija téye yonent bi nee toppatoo ko nee kuube ko moo tax yàlla may ko lu mayul kenn ñu ne ko lool mooy lan mu ne mboolem doom ju yonent bi jur Khadija la jur ba mu des Ibrahima ñu ne Maodo ça fait l'occasion sax dañoo bëgg a xam yonent bi ñaata bant la am ñu ne Maodo ba këreg taramaan aram loo kumba caam faawaat du forma joob bugguma penda paate penda xaar yàlla bopp joor Maodo ne maa ngi tiwaawoon waaye tey ma wax leen ñaata bant la juróom-ñaari bant la ñett yu góor ak ñeent yu jigéen ñu ne Maodo doyuñu limal yu mu ne bank leen Abdalaay ak Hachim ak Ibrahima ak Zeynab ak Roqaya ak Umu Kalsum ak Fatimatu bintu Rasul ñii la yonent bi njaboote waaye li ma la mën a wax mooy Abdalaay mooy Hashim mooy Zeynab mooy Roqaya mooy Umu Kalsum ak Fatima ñii Xadija leen jur ba mu des Ibrahima ñu ne do mu ne leen wax xam naa li ngeen bëgg a wax kan moo jur Ibrahima tey ma wax leen ko bàyyi leen ñeenti continent mooy Europe continent américain asiatique ak waa Océanie bu leen fa jëm su ngeen fa demee du ngeen ko gis ñu ne Maodo fan lañ jëm mu ne dem leen continent africain au nord de l'Afrique mu ne dee dëkk ya bari na Maodo ne dëkk demal ci dëkk bu naan Égypte nga laajte famille bu naan Qibti nga laajte jigéen ju ñu naan Marietu kooku moo jur Ibrahima ñu ne Seydi Laaji Malik mu ne wal ummuma riyatun law ghasha fadha bi moo tax Maodo keroog ba ñuy jooy jak saaw ne taalibe yor seen gopp naan déggal Baay Mansour wa jaa abil umam jaa abil umam ayo yo déggal Baay Mansour wa jaa abil umam wax nga ñu kiiraay yamu doon sabbaale yàlla ki bindoon wax nga ñu jeej ya ko dogoon na mu ca fiye way nga ko wax nga ñu abra ki ñayam wax la ko mer loo mu jëm ca kaaba ngir ma bu ko daw la ko ca dal way nga ko moo tax sëriñ Babacar ne ko yow Maodo matal nga te ku wax lu rëy dégg lu rëy sëriñ Babacar ne ko baay yaa man ataa bi xilaasin فائقين دررا تيباي قد يقتمع يعجب السودان القرراي اي باي زينت مزار على خير البرية من تيباي قد أنزل الله في أمداقي اسم الراي yaa baay yaa jël jànku xam-xam may ko waxambaaniw jëfe am anta atqanta akmaltal jami awaxat an kaxta min amalin ilman kafanta shira ciy baay sa géeju xam-xam gi tefes gi ci la gaañi am wa yakfi naasa saa iloo fii qaribun بعيد ثم الراجباي هذا كتاب نفيس قد جمعت لنا في الآديس والآيات والسيرات باي تقل باي منصور جاء بالأمم جاء بالأمم أيوه تقل باي منصور مدمالي وإذا أتاك كان مسرورا يقال كن مسكون يندل كمالا لربن لا يندل كمالا كن مسن يندل كمالا لربي كافر كن مسكون يندل كمالا مي ماتي بالا كن مسن يندل كمالا جانك جينا كمالا كن مسكون يندل كمالا يا جرتان ترسول جرتان تر كمالا مو جرتان تيونا جرتان تر كمالا يا جرتان ترسول جرتان تر كمالا يا جرما قرسول جرما قرسول barkamaana liir buy kaaf barkamaana liir buy kaaf barkamaana liir bu ñu lakkal liir bu ñu lakkal liir buy kaaf bari liir buy kaaf kër Rasul di ko gàmmu kër Rasul di ko gàmmu fondation bi di ko gàmmu moo jara tantal Rasul jar naa tantal moo jara tantal Rasul jar naa tantal yaa jara màggal Rasul jar naa màggal kenn musu ko liir ba dal kaana maa yaxtoonan bila ma moo ganeena wasal أيه يو أنا محمد أنا المختار في القدم كنار